badal lana auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokki jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay muy mel ni yéen ngi seen télévision bii di Majmahun Nurayni TV ñu war a àndax yéen ci émission bu yees pek mu nekk ab plateau spécial ngir waajalee ko ab ziar ziar ba nag ñu koy amal ca kanamu ki nga xamante ni moo di Serigne taxa Mbacké di ñaan saa yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ba naa li nga xamee ne am na ko jëm ci liggéey bi nga xamante ne la ko fi maamam ja bàyyil mu am ci lu kawe njortam ci barkeb xasde yi te yàgg ko ànd ak itam ñi nga xamante ni ñoo di mbokk taalibe yi naka noonu ñuy nuyu ak ziar ki nga xamante ni. moo di xalifa général de Baye Fall di sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenda di ñaan itam saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko saa borom may ko ci lu kawe naka noonu ñuy nuyu ak ziar ki nga xamante ni moo di suñu bunt fii ci Thiès di sagub bépp murit mu di sëriñ Salif ture di ñaan saa borom itam bàyyi ko fi lool te mu ànd ak wér te ak ki nga xamante ni moo di jëwrinam ja sa kër ga di Cheikh Ahmad Bamba ture saa borom woyofal liggéey bi nga xamante ni sumb na ko ànd ak njaboot gi ak mbokk taalibe yi yëpp. mu mel ni nag dalal nañ suñu ay invité war a am ak ñoom waxtaan ci li nga xamante ni moo aju si wàccaayu ziar bi ñu war a amal le 2 juillet incha allah fële ca Touba ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké xanaa rek dañuy bàyyi kàddu gi ak suñu ay invité mu mel ni sama càmmoñ maa ngi fi am kii di Serigne Fallou Faye nekk jëwrin ci li nga xamante ni ñoo di waa culturel Euh, ci wàllum durus waane itam euh, sama ndeyjoor ma am fi kii di jëwrin Sidi Wade moom itam nga xamante ni ci wàllum culturel la féete waane si ñu yor wàllum euh, kuréel gi ñu jox rek jëwrin fàllu mu nuyoo bu ko nefee ñu door a jox ki nga xamante ni moo di jëwrin Sidi sëñ fàllu bismillah أعوذ بالله الكريم الرحمن الرحيم من إبليس اللئيم الشيطان الرجيم بسم الله الواحد القهار man kafaani ibliis al aduwa daalin qixeer liman il mulku al yowma al mulku al yowma wa xabla al yowmi wa bacda al yowmi lillahi al waahidi al qixeer al xalaaiq wa maa sadara minhum abadan salli wa salli man yaa ilaahi ala xalilika ibni abdillahi sayidina wa mawlana muhammadin al abarri billah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bila tanaax barke borom tubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di nuyu Serigne xaadim di ko jox wàcc waayam di ko seere bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek xam naa dañuy jox sëñ Khadim mu jox seen siidi mu nuyoo bu nu noppee ñu door a jàll ci biir jotaay bi. jërëjëf euh, jëwrin euh, Serigne Fallou ci kàddu yu am solo ak nuyoo boobu kon xam naa rek boo ko defee dañuy jox jëwrin siidi moom itam mu joxe ay kàddu nuyoo bisimilah jëwrin bisimilah inna waliyallah barke borom Tuuba ama tawfiq illa billah wala xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim barke borom Tuuba kon asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi ziare mbokki taalibe yëpp di nuyu kenn ku si nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Mouhamadul Mountakha di xalifa général kullu murit comme ni ko sëñ Xaadim defee rek di ci tegit sëriñ Amdi Moodu Mbenda xalifa général Baye Fall di ci tegit sunu buntu ci Thiès di sëriñ Saalix Touré di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te ànd ak kon ñu ngi bàyyindi ko kàddu gi noonu di déglu ba ci kanam ah, jërëjëf jëwriñ Sidi ci kàddu yu am solo yooyu muy mel nii comme ni leen ko waxee rek yéen ñi nga xamee ne yéen a ngi door a dabu seen émission bi ñu amal muy ab euh, émission ab plateau spécial ngir waajalee ko ziar bi fédération Majmahun Nurayni war a amal fee ca Touba ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké kon xam naa rek boo ko defee dañuy ñëw ci Serigne Fallou ñu bëgg a xam rek euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ci commission culturelle ani ban wàccaay ak ban taxawaay ngeen am ngir waajalee ko li nga xamante ni moo di ziar bi ñuy waajal la de incha allah. alhamdulilah euh, jërëjëf Serigne Khadim ci laaj boobu. kon xam naa dañuy jublu ci loolu rek bu fekkee li nga xam ne moo jëm ci waa commission culturelle moom wàccaay wi noo xam yi nga xam ne am nañ ko ci ziar bi ñu dëgmal weesu wut wàccaay yi ñu ko daa amale waaye rek nag dana am ay soppiku euh, wàccaay yi li ci jëkk mooy jamono ji ñu nekk nii am na ay li mu xasaayit xam ni waajaloon nañ ko euh, di sàkku bokki taalibe yépp ku ci mën a barkeelu rek jàng ci su ko defee ñu ñaanal ci seex Mouhamadul Mountakha ñu seex Mouhamadul Bachir sunu borom bën ko yàggal ci jotaayu seexul xadim ci barke borom Touba. lim yooyu ñu ngi ci kon lu ci waay jàng rek mën naa jokkoo ak waa commission bi xam naa du ñàkk ñoom suñu xaadim dana jàllale numéro yi mm-hmm. euh, li nga xam ne moo ci topp itam mooy bu nu demee ba ca bis ba bisu ziar ba foofa ca Touba. Uh-huh. am na équipe boo xam ne ci waa commission culturelle. Uh-huh. war na faa jiitu. Uh-huh. boo fa jiitoo ngir mën a defar barab bi. waajal gan yi nga xam ne ñooy ñëw. équipe boobu nag ñoom mbooleem li nga xam ne ay wàccaay la te jëm ci commission bi. ñoom danañ ko amal. Uh, bu nu demee ba ca bis ba itam. Uh, soppiku bi nga xam ne moo ci am ren ji. muy lu jëm ci biir salle bi. ak eh, baas bi nga xam ne dana ko def ci biti mm-hmm. ak ci boori soxna yi mm-hmm. loolu lépp toogaay beeg sàppe yeeg lépp waa commission bi ñoo ko yoran ji mm-hmm. kon loolu itam bokk yi nga xam ne danañ fa ñëw ñu bàyyee loolu xel waaye bi dana am ay eh, dana am ay liggéey yoo xam ne ñoom itam ñoo ko fay amal lu demee ni ki jug di séddale jukki yi ak itam toog di defar xasaay di nga xam ne jàng nañ ko ba noppi waaye di ñaan rek képp koo xam ne jàng nga sa jukki ba noppi mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom nga gis ñu taxaw di joxe jukki yi mm-hmm. nga delloowaat sa jukki mm-hmm. waaye ren comme ni ma ko waxee léegi rek dana am ñetti jotaay yoo xam ne danañ fa am benn bi mooy jotaay bi ci biir salle bi boobu dana am ñun fay teg ñoo xam ne ci commission bi leen bokk di séddale jukki yi ak a defar jotaay bi ci biti muy bâche bi nga xam ne danañ ko def ci biti ndax gan yi kenn ku ne xam na ni ñi fay ñëw day bari mën a xaj ci salle bi ñoom ñëpp loolu moo sabab dana am benn bâche boo xam ne dañ ko def ci biti mhm. waaye bâche boobu itam dana am euh, ñennat ci waa commission bi ñu fay nekk mhm. ñoom ñuy defar mhm. ci soxna yi itam dana am ay soxna yoo xam ne danañu leen tànn ñoom itam ñuy defar foofa nga xam ne lu jëm ci séddale jukki yi ci boori soxna yi ñoom ñoo koy def lu jëm ci defar xasaa di itam ñoom ñoo koy res kon loolu daal mooy ci gàttal wàccaay yi nga xam ne waajal nañ ko waaye am loo xam ne itam dan koy waxaale bokki taalibe yi muy bu nu fa demee ñu bàyyee xel rek jotaay bi ñi nga xam ne ñoom la tànn ngir ñu defar sàppe yi ku nu wax toogal fii nga dimbali leen rek toog foofa mm-hmm. ndax liggéey la boo xam ne dañoo bëgg lépp yomb ci ñoom mm-hmm. bu nu fa demee itam ànd ak dal mm-hmm. te fexe ànd ak yar ak teggin te fexe ñi nga xam ne jàngunu ñu bañ a nekk ci leneen lu dul jàng jàng xasaa it ñi nga xam ne doo nekk ci kuréel yi moom mën nañ cee nekk waaye mboole seen ñi nga xam ne dana toog <coughs> te ziar bi indi leen te mën a jàng buñ fa nekkee nanu jéem a jàng ci xasaa it ñu leen di jox ñi mënta jàng itam téye seeni kurus di def ay salaatu ala nabi wala lu baax lu nu mën a def mm-hmm. kon daal euh, sëriñ Xaadim mm-hmm. ci gàttal daal yaakaar naa ni loolu mooy li nga xam ne waa commission bi waajaloon nan ko lu jëm ci ziar bi mm-hmm. kon nag loolu la ñu ngi ñaan nag sunu borom gën a yàggal Seex Muhammadul Muntaxa ci sunu kanam te yéen ñi nga xam ne yéen ay waa ma Majmahun Nurayni TV mhm. sunu borom gën a yokk seen i taxawaay mhm. ndax liggéey bi rafet na lool mhm. barkab Serigne Touba jërë ngeen jëf waaw ah, jërë jërëjëf euh, Serigne Fallou ci leeral yooyu muy mel ni dégg naa ca biir yi kàddu nga wax ni maanaam saal ba lépp la fa aju si ci ci ci ci ci seen i loxo la nekk kon muy tekk rek ni maanaam euh, la ngeen di seenu ci ci ci ca saal ba mooy ni képp koo xamee ni noppi na ngir mën a ñëw jàpp ci dóorus ki mooy ñoom ñu nga xam ne lañ yittewoo foofee Eh, waaye bëgg noo xam itam euh, lim yi nga xamee ni maanaam génne ngeen ko ngir waajalee ko ziar bi ba xam jot ngeen a takk euh, maanaam yan xasida lañ ngeen ngeen ngeen bëgg maanaam yaatal ngir nit ñi mën koo lii ba noppee itam nga waale numéro bi nga xamee ni képp koo xamee ne am na loo ci barkeeloo ci lim rek nga mën ko fa tàbbal ngir ñu mën a xam ni am na foo ca toll bu fekkente ni loolee jàppandi na incha allah rabi nga mën koo kii bisimilah. waa jërëjëf sëriñ mm-hmm. nga ko waxee rek. Euh, loolu mooy li nga xam ne moom la bokki taalibe yi di sàkku mm-hmm. mooy képp koo xam ne dugg nga ci biir saal ba mm-hmm. na nga fexee ànd ak dal ak teewlu mm-hmm. waaye di jàng xasaayit yi ndax saal ba kenn ku ne xam na ni fa la kuréelu xasida yi di nekk kon foofa nag duñ fa soxla ay waxtaan wala yeneen yu ci aju liñ fay soxla rek mooy ñoo xam ne dana mën a toog jàng ba ci biti ndax bu fekkee ñi ci biti itam dana am ay kii yi leen di tegal yoo xam ne ñoom mm. lu ñu soxla ci gis ko ci bis bi rek danañ ko mën a gis mm. waaye ñooñu kon ñu ngi sàkku ci ñoom itam ñu uh, taaral jotaay bi nekk ci njàngum xasaayid ak yooyu mm-hmm. bu fekkee li nga xam ne moo jëm ci lim yi nag moom mm-hmm. xasaayid yi ñu ngi nii danaa jàllale numéro bi léegi mm-hmm. xasaayid yi sindi di euh, bëggoon nañ cee jàng lu toll ci mille euh, mawaahibu naafi itam bëggoon nañ cee jàng lu toll ci cent muqaddamatul amdaax bëggoon nañ cee jàng lu toll ci cent euh, jeesbul xulóob itam bëggoon nañ cee jàng lu toll ci cent mafa mafatihul bishri amoon nañ yéene jàng ci lu toll ci soixante-dix Eh, jaawartu laaxa itam am nañ yéene jàng ci lu toll ci mille mm-hmm. jaalibatul maraaxib itam am nañ yéene jàng ci lu toll ci cent mm-hmm. nuuru daarini am nañ yéene jàng ci soixante-dix mm-hmm. wakaana xaqan trois cent treize wala xadd karam naa cent wasilatu rubuux soixante-dix taysirul ansir deux cent xisnul abraarul hudaat vingt-huit allahu min kulli karim 313 mhm. bëggoon na noo def itam ak ay limi laa ilaha illallah lu toll ci cinquante mille laa ilaha illallah mhm. ak basmala lu toll ci cinquante mille francs mhm. cinquante bokk kon képp koo xam ne mën na cee barkeelu rek bu jokkook 77 479 41 85 bu jokkook ñun rek euh, ñu mën a euh, xam ñaata la ci jël te bu ko jàngee ba noppi itam yëglu mhm. kon loolu daal mooy li nga xam ne en grosso modo mhm. mooy li nu waajale ziar bi ci wàllu woowu mhm. kon jërëjëf sëñ Xadim jërëjëf euh, Serigne Fallou si kàddu yooyu ak leeral yu am solo yi muy mel ni di yéen ñoo ko déggandoo képp koo xamee ni rek maanaam am nga euh, bëgg-bëggu barkeelu ci li nga xamante ni moo di li mu xas dañuy waajalee ziar bi joxe nañu numéro bi nga xamante ni euh, képp ku ci jot a jàng rek foofee ngay woote ngir mën ko saytu xam naa incha allah rabbi dañ ko defaale ci suufu euh, baar bi nga xamee ni képp koo xamante ni rek loolee raw na la di nga mën a amaale information bi ngir boo ci noppee rek nga mën ko euh, maanaam jàllale si numéro boobee kon xam naa rek dañuy ñëw ci ki nga xamee ni moom mooy euh, jëwrin Sidi mu ñëw rek ani e, ci ci ci ban wàccaay ngeen ngeen ngeen nekk ngir waajalee ko ziar bi ba xam dafa am ay dispositifs yu bees yu si yu yokk ci liggéey bi wala na ngeen ko demee woon daaw noonee ngeen ci ngeen ci tàbbeewaat rek incha allah rabbi bismillah waaw jërëjëf sëriñ Xaadim noo ngi lay ziare bu baax di rafetlu kàddu yi bu baax a baax a baax comme ni ko suñu fàllu defee rek wàccaayu ziar bi ci wàllum njàngum xasida yi Euh, tàmbali woon nañ jotaay bi ci wàccaay ci li ci jiitu demoon ci école yi nga xam ni ñu seq mboolem Majmahun Nurayni ci saytu seenum euh, njàng ci kenn ku ci nekk ngir li ko waral mooy sëriñ bi kat euh, dafa amul lu dul xasidaam yi mm-hmm. xasidaam yi ci la doon ci la doon tàggee yonent bi ba am ci loo xam ni ku dul moom amoo ko ci mm-hmm. loolu nag ci la ñu nekk te loolu mooy li gën lépp mm-hmm. looloo waral ñu gis eh, ziaru ren bi ñu indi ci ay soppite ci wàllum njàng mi mm-hmm. ngir it gën a dabuwaat bëgg-bëgg sëñ bi loolay tax ñu def ay tournée ci mbooleem école yi di xool seen niveau kuréel ci biir ñooñu ci la ñuy tànn ñenn ñoo xam ni ñooy amee njàng mi kon noonu lañ ko defee wàccaa bi lu jëm ci wàllu njàng mi it ginnaaw bu ñu bu ñu àggee ba foofu ci suba gi bu ñu xëyee dañuy teel a tàmbali njàng mi kuréeli école yi ñi nga xam ne jot nañ leen tànn danañ leen saytu ñu tàmbali njàng mi di ko def ci animation am njàng di ko dundal dundal njàng mi buñ demee bu boori benn waxtu kuréel ci boppam kuréel 1 maj ma fa yi nga xam ni moo lëkkalee mboolem école yi mhm. ñoom ñooy jël mhm. bu ñu jëlee ñoom doxal ba keroog sëñ bi di génn ginnaaw tàkkusaan mhm. ñu siyaare ko loolu liñ ci jublu e, da cee am ñaar li ci njëkk mooy ki nga xam moom lañ koy defal moo fi nekkal sëñ bi muy sëriñ mu Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér léppam day xasida yi léppam day xasida yi yitte gi mu ko joxit kenn ku ci nekk gis na ko ci ci mboolem lépp loolu feeñ na ba ci siyaaru daaw bi mm-hmm. dem na ba maanaam bég lool ci dundal gi nga xam ni dundal nañ ko ci guddi gi ca kër ga ci xasida mm-hmm. nga xam ne lépp da ko da koo teewe mm-hmm. loolu lool loolu yokk bokk yokk na ci li tax maanaam sunu gis ci moom daal di daal di daal di jàppandi lool kon moom loolu day doon yittim kon nag sëriñ bi bu ñu bu ñu bu ñu taw fexelee ñun ñu ne ci ñu ne ci lool dañ ciy sant bu baax mm. moo tax saa ne dañuy xool nu mu gën a selle nu mu gën a baaxee ñu koy defee noonu mm. di ci di lépp rek di ci di ci dab ak bëggam mm. di ci di ci dab ak bëggam te it lépp ñu def ko ci bayit bi sëñ bi di wax di wax di xawaaid allazina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu di xam sëñ bi day ñaan ci suñ boroom ni na euh, maanaam ci ñi nga xam dañoo sax ci di ma liggéeyal deelal ma te te te fajal leen seen aajo te lu ñu soxla na leen ko defal kon sëri foofu daal la ñu fas yéene nekk di mm. sax ci liggéeyal sëñ bi mm. te it bi amul dara len len ginnaaw li mu doon liggéeyal yàlla lu ko gënal lu dul xasidam mm-hmm. ndax moom moo ko wax wax ni karamati xattu yadi mm-hmm. fii xitimatil muqayyadi mm-hmm. wa kaana li ba afet yi allahuma kon sëriñ bi li muy li mu moom moo wax ni lépp loo xam ni li nga xam ni moom laa doon liggéeyal yonent bi ci sama mbind mi mooy li ma yéem mm-hmm. kon ñun dañoo nekk ci li nga xam moo yéemoon Sëñ Tuubaa kon nag mm-hmm. loolu liñ ci njëkk a soññee ci ci ci mbokk taalibe yi mm-hmm. mooy ñu gën a waajaat bu baax xam ni fa ñu ko tegoon ndaw dañ ko war a weesu ngir sëriñ bi moom amul tànki ginnaaw tànki kanam la am kon nag tànki kanam yooyu ñun ñoo koy wane ci yar gi ci teggin gi ci maanaam sàmmante gi mhm. ci sell gi ndax loolu rek moo ëpp solo moo ëpp solo lépp mhm. kon daal noonu lañ ko fas yéene defe bëgg di ñaan suñu borom mhm. yéene gi nga xam ne am nañ ko ci suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu jort kon daal sëñ sëñ Xaadim wàccaay daal foofu lañ ci toll man jërë ngeen jëf jërëjëf euh, jëwriñ Sidi ci leeral bi ak ci kàddu yu am solo yooyu noonu muy mel ni comme ni ngeen ko déggee rek lépp li nga xamante ne aju na si wàllum njàngum kuréel ak durus maanaam am na ci ay wàccaay yoo xamee ni boobee ba léegi ñay saytu loolee ña nga ca ngir jéem a fexe xool ani yan lan lañ ciy indi ak ak yan doxalin lañ ciy sofaat ngir liggéey bi gën a mën a ñoom kon xanaa rek bu fekkente ni am na ab soññee wala lépp loo xamante ne ay dispositifs yu yu yees la ngeen bëgg koo xamal mbooloo mi rek euh, bismillah bu fekkente ni tamit kiiwul ñu mën a wal waaw bu ko defee lu jëm ci dispositif yi ni ma ko waxee sànq rek. Mhm. moo ci nekk li ci jiitu mooy bu nu yeewoo fajar incha allah 6 mhm. heures la ñuy def mise en place. Mhm. maanaam organiser barab bi foofu. 7 njàng mi dana tàmbali. kon 7 dana tàmbali ba waxtu une ci la kuréel 1 di jël ba bi sëñ bi di génn. kon loolu it dispositif yi ñu ci jëlit mooy commission. am na beneen commission boo xam ni ut nañ ko ci biir commission organisation. Mm-hmm. muy commission sécurité. loolu li ko warale nit ay nit moom fu ñu nekk faaw ñu leen di kenn ku ci nekk maanaam ñu lay ñu lay teg ci yoon. ci foo xam ni war nga fa àgg te àggoo fa maanaam ñu yemale fa ñu yemale la fa. Mm-hmm. kon dispositif yooyu lañ jël. yooyu yëpp ngir ngir ziar bi gën a mucc ayib ndaxit ab sëriñ boo koy siyaare. Mm-hmm. boo nee sukk ci ci kanamam war naa gis ak ak benn jikko mhm. bu baax ci yow mhm. donte jikko jikko yu baax yëpp maase ci yow mhm. loolu moom moo tax sëñ Tuubaa ñëwoon jamono kon loolu doo nga ko indi pour defarug ja jamono defarug nit ñi te comme dem nañ ba tollu jamono joo xam ni yéeme na waaye lépp liñ ci liñ ci liñ ci bëgg rek pour bu ñu fu ñu toogeek sëñ bi rek mu xam ni ñii kat seen xol bii kenn nekku ci ku dul sëñ bi seen yitte it gis sëñ bi képp la woon kon loolu moo gën a yokk a tax mhm. ñuy soññaat bu baax surtout su ñun ñi nga xam ni sëriñ bi dañoo dañoo dañoo tawféexal mhm. ñu ne ci xasida yi kon loolu maa ngi koy soññ sama mbokkum kuréelkat yi yëpp ñi mhm. ne ci école yi rawatina kuréel 1 gi ñu waaj ko bu baax te xam ni leneen lu dul lii lii mu mënuñu ko may kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a waajaat suñuy jëmm waajaat su ci lépp. Mm-hmm. ba bu nu ñëwee daal. Mm-hmm. li sëñ bi bëgg ñu ne ca. Mm-hmm. bu génnee fekk ñu ca. ndax sëñ bay jaxate day wax ni lu dul ndigal amul njariñ. te kat xamal ni ab sëriñ. du bëgg nit ba fa njariñ jox ko te toppul ndigalam. kon ñun sunu sëriñ si ñu yaakaar. sëriñ sëriñ Mouhamadou Mountakha lañ ciy jiital moo jiite mboolem yoonu murit. ak képp koo xam ni yaakaar nga sab sëriñ. moo mënu laa jariñ te du la digal nga def du la tere nga bàyyi mm-hmm. kon nag ziar bi foofu rek lañ ko teg ci ndigal rek lañ koy teg mm-hmm. bu nu demoon ba ba ba ba xëy suba sëriñ bi ne ñëw leen ñu ñaanal dañuy dem mu ñaanal ñu ñibbisiwaat te xam ne am nañ ko mm-hmm. kon foofu daal lañ ko teg ñun ñëpp rek ñu ngi wàcce foofu kàddu yi jërë si si kàddu yu soññee ko yooyu anaka yéen moom li may faral di wax rek tawfeex gi ngeen am moom mbooloo mi dañ leen a war a gën a wegaat ndax bu sëñ bi ne samay xas damaa ko bind te ñoo koy jàng maa ngi tànnal sama bopp képp ko ca bokk rek am nga tawféex ku keneen ku neen ku dul yow am kon maam mbooloo mi moom bokk war ngeen a bokk suñuy gën a wekk te loolee sax nag mooy li am kon dañuy ñaan rek yàlla saa borom gën leen a taxaw ba yéene bi ngeen am ci xeste yi saa borom defal leen ci lu kawe seen njort te ngeen dajasee ngërëmal sëñ Tuubaa kepp ndax suñu sag ngeen gis nañ saa su ne taxawaay gi ngeen am ci liggéey bi waaye itam njàng mu am solo mi ngeen def saa ne mu ñuy waajal akub bés te daa am lu ñuy faral wax naan ki tax ki tax nga tax te du la musa wax ne maa tax ngay tax kon maanaam jàpp naa ne boo goree ne ko yaa tax ma tax te ñun sëñ Tuubaa tax ñu tax kon suñu ngoree daa war a mën a delluwaat ci maanaam saa su ne di jëf la nga xamee ni mooy la mu la la la nga xamante ni moom mooy suñu wareef sax moom ndax moom wàccoog nag ñun kon xam naa rek dañuy jox ki nga xamante ni moom moo di ah, Serigne Fallou mu joxe ah, ab kaddu kaddu kaddu tàgg tàggatoom rek ñu balaa ñuy dalal ñi nga xamante ni ñooy suñuy suñ suñu ay yeneen invité incha allah. Eh, jërëjëf Serigne Khadim. Mm-hmm. kon sant nañu bu baax a baax. Eh, mm-hmm. liñ ci wax rek. muy kàddu gu mujj mooy. Mm-hmm. mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu fa teew. ñu ñu nekk ci teewlu ak njàng mhm. te bañ di wax bu nuy jàng xasaay di mhm. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ndax mbir la moo xam ne Sëriñ Tuubaa mhm. bañoon na ko lool am na bis boo xam ne mag ñi dañ doon jàng ay xasaayit am ku toog di wax sëriñ bi noppiloo mag ñi ni ko mbir moo xam ni bu nu jaayoon bu nu la jaayoon yow jaay sa askanu ndey jaay sa askanu baay lu tax ngeen mën cee jënd wenn xaraf bu nu koy jàng li la war mooy nga teewlu. Mhm. kon nag loolu ñu ngi ciy soññee bu baax a baax ñu bàyyi xel. Mhm. ci bu nu toogee guddi gi. ñi mhm. nga xam ne ñoo yëkkati ñu leen di teewlu waaye nekk ci du durus xasaay di. di fàttali bu baax itam sëriñ bu sëriñ bi bu génnee. ñu bañ a nekk di tëb ak a dal. na ñëpp toog. ànd ak yar ak teggin. loolu mooy meloo taalibe. ndax foog naa ni sëriñ bi bu génnee ñuy tëb ak a dal. loolu bokkut ci li nga xam ne yar la. kon nag bu génnee. ñi nga xam ne ñoo yor wàllum war koo jël ak jël jotaay bi mm-hmm. ñooñu yéen lay defe naa mhm. kon nag ku am sa téléphone mën nga koo denc mhm. ba ba ziar bi di weesu mhm. loo soxlaa xam ci ziar bi rek bu soobee yàlla yéen di ngeen ko jàllale mu jot ci kon nag euh, loolu daal ñu ngi ci euh, lancé benn message di ko bàyyiloo xel bokki taalibe yi di leen sant comme ni ma ko waxee léegi ci taxawaay yu rafet yi di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko yàggal ci barkeb Serigne Touba kon jërë ngeen jëf kaddu jërëjëf jëwriñ sëñ Fall day mel ni lañ ca waroon a jàllale si message nga xam ne suñu cri de cœur la far ngañ koo waxaaleel te kaddu yi mate na ko te am na solo kon xam naa rek ñi nga xamante ni ñoo di waa commission culturelle yi yore wàllum njàngum xasida jàpp naa ne yéen moom seen tàggatoo day day day ñëw ci loolee rek kon xam naa ne dañuy jéem a fexe yow ak sëriñ euh, sëñ Saliou ngeen ñoo dem jéem ñoo mosal rek lenn ci ay bayit ngir ñu mën a tàggatoo loolee laata laata ñuy dalal suñu yeneen ay invité xam naa dañuy bàyyi sëñ Saliou dugg si fekk sëñ sëñ Sidi ñu dégtal ñu lenn rek ci ay bayit ngir ñu mën ko tàggatooyee bu ñu paree door dalal si nga xamante ni mooy suñuy invité si deuxième partie émission bi bismillah rabbi bima yasrahul azana qad fajaa bijaa'i aftali man لله قد لجاء ربي بما يشرح الأذان قد فجاء بجاء أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم من لا شريك له وساتري اليوم نورا شاتعا ملاء محمد صلوات الله في أبد عليه في قسبه كل به كلاء أدعو إلى إله العماد موائبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيت جلاء أعواما وكرمني تكريم هاد وكل لهم لخا بريئا رحمن وبجميع الخلق رحمة من يغني عني شري من قرآنه قراء خدمة المصطفى عن كل ما صدات ولترحم القلق يا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هادي الرداء ما حوت ما قد ناحاهم خلب من ضرر بجاء أبتل لمن لله قد لجاء محوت ما قد ناحاهم قلب من درر بجاء أبطل من لله قد لجاء jërëjëf ñoo di nuyu sëñ Aliou ci njàng mu am solo moomu kon xam naa rek euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi door a dabu seen euh, plateau spécial bi ñuy waajalee euh, suñu ziar. fële ca Touba ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké euh, ñu ngi seen télévision Majmahun Nurayni TV kon xam naa rek dañuy daal di dugg ci li nga xamee ni moom moo aju ci suñu deuxième euh, partie émission bi ngir dajal dalal ñi nga xamante ni moo di euh, yeneen invité yi laataa ñuy jeexal li nga xamante ni moom moo di plateau spécial bi kon nes tudd rek ngeen fekk ci waat ñu ñu continuer li nga xamante ni moom moo aju ci plateau bi ngir dalal suñu ay invité bismillah waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yi muy mel nii dañuy daal di dugg rek ci li nga xamante ni mooy suñu deuxième partie euh, plateau dalal ñi nga xamante ni ñoom si suñu ay invité sama càmmoñ maa ngi fi am kii di jëwriñ Serigne Salihou Ndour nekk euh, nekkoon jëwriñ ci li nga xamante ni moo di fédération bi di Majmahun Nurayni ti Majmahun Nurayni sama ndeyjoor ma am fi itam yeneen ñaari invité kenn ki ñu koy woowee jëwriñ Serigne Fallou nekk ki nga xamante ne moom moo teewal yeneen jëwrin yi nekk si yeneen gox yi fasantikoo yi nekkul biir Thiès ñu mën ci lim nit yi Touba euh, Xombal ak Ceneba euh, waane itam euh, ak ki nga xamante ni moo di jëwrin Serigne Saalihu Fall nga xamante ni tey jii moom moo di jëwrinu mbooloo mi di Majmahun Nurayni kon xam naa rek dañuy njëkk jox kii di jëwrin Serigne Saalihu Ndour mu joxe ay kàddu nuyoom laataa ñuy ñëw ci ñoom bisimilah jëwrin. salaamaaleykum. sëñ Xaadim ñoo ngi ay siyaare bu baax a baax a baax di siyaare mbokku taalibe yëpp di siyaare Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal saa gën koo bàyyi mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu bépp membre boo xamante ne mu ngi ci Majmahun Nurayni di leen siyaare te di leen ndokkeel ci waajtaayu bés bi ñu dëgmal bismillah jërëjëf jëwrin euh, sëñ euh, euh, Salif kon xam naa ne dañuy jox sëñ Fallou moom it mu nuyoo bisimilah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Majmahun Nurayni TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ñaanal bu baax sëriñ Muntaxa suñu borom soo ko fee yàggal lool te mu ànd ak wér di ko ñaanal mboolem njabootu sëriñ bi mm. di ko ñaanal bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi muy man moomu nooree ni di jiital jëriñ sëñ Saaliw di nuyu ñi nga xam ne tey ñoom lañ fi teewal muy waa lycée bu xombal lycée bu ndàngal ma lycée bu canaba ak lycée bu tubaatul ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar kon jërëjëf sëñ xaalis jërëjëf sëñ jëriñ ah, sëñ xam naa rek dañuy jox ki nga xamante ni moo di jëriñ sëriñ Saaliw Fall mu itam mu jox ay kàddu nuyoo bismillah jëriñ aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mboolem ñu fi teew ci jiital sama njëriñ sëriñ Saliou Ndour di ko sant baaxee ci teewaay bi di nuyu ak sant euh, chaîne bi nga xam ni initiative bi ñoo ko def ngir wàccaayu ziar bi mañ ma ko noonu ni waaye samay nuyoo dama koy jiital ci nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom mi nga xam ni moo ne ci bopp yoon wi di nuyu itam sëñ Sall Touré moom miy jëwriñu dëkk bi nga xam ni fi la ji di mañ ma ko nooree nekk di am mbégte loolu itam ci wàccaay yi nga xam ni liggéey bu mag bi ñu jëm maanaam initié nañ ko ngir waajale ko eh, ñi ngi ñi ngi sant ñëpp tey ñaan sunu borom sunu kàddu yi mu gërëm ko ba noppi nangul nu ko ci biir nangu loolu ak ngërëm li lépp mu def ko fan wu gudd ak wér ñeel Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak jërëjëf suñu xaadim jërëjëf jëwriñ sëriñ ci nuyoo bu am solo boobu kon xam naa rek dañuy ñëw ci ki nga xamee ni moom moo di jëwriñ sëriñ Saliou muy mel nii moo njëkk a nekk ki nga xamante ni moo di jëwriñ ci fédération bi te am na lu ñuy sumb ngir war caa dem mu di ziar. ci ki nga xamante ni mooy xaalifal Serigne Touba donc maam amoon nañu yéene nga xamal ñu rek ani lan lañu mën a euh, euh, xamee ci histoire gu euh, ziar fédération bi ci ziare mu njëkk amal ak ki fi njëkkoon nekk maam ki fi ki fi nekkoon xaalif ba ñuy njëkk dem ziar yi fee ca ca Touba maanaam ani ci fan la sosoo ak lépp loo xamee ni rek amaana mën nañ ko cee xamee ci historique gu ziar bi nga xamante ni la fédération bi di amal tey. bismillah baax na sëñ Xaadim jërëjëf ci laaj bi mm-hmm. muy laaj bu ama ama am solo boo xamante ne wax dëgg fa am naa ci mbég lool ngir euh, tontu ci mm-hmm. euh, waaye balaa may ñëw ci historique gu bi sax mm-hmm. coslaay daara ji ci boppam fa lay tàmbalee euh, ñu xam ne Majmahun ni ñu ngi ko sos ci année scolaire bu 2008 2009 la ko sabab nag du kenn ku dul Serigne Saliou Touré ndax booba daayira yi nekk ci ecole yi bari nañu te bu ecale bu école ubbiwaan ba mois d'octobre jàll ecole bu nekk danaan bëgg ñëw siyaar si Serigne Saliou Touré at mooma 2008 bi ko Serigne bi ko lycée Malick Sy booboo jamono jooju maa nekkoon jëwriñ ji bi ñu ñëwee siyaare ko daf noo sant ba pare mu ne bu subaa na nga fi delsi ca su bëgg ba ma delsee mu ne ma dama laa bëgg liggéeyloo mbir mi xawoon na xawoon ma diis lool sax ndax ku toll sëñ Saliou Touré ne la dama laa bëgg a liggéeyloo day day diis mu ne ma liggéey bi nag du lenn dama bëgg nga dajaleel ma école yëpp ñu booloo doon benn mu ne ma ndax ngërëmal sëriñ tubaa muy gën gaaw a tabbi ci yéen ci ngeen booloo doon benn lii moo cos lay daara ji ba ma ci jógee ki ñuy wax Xaadim Rasul Mbay ñu gën ko xam ci Cheikh Bamba jamono jooju moo nekkoon nouveau sa jëwrin ma woo ko ne sëñ Saliou Touré kat dafa am liggéey bi ma sant bi ma ko ko leeralee moom mu ànd ak i àll lool daal di ma ne loolu jarul jarul amul amul leen loo ma ci yëgal sax ndax bëggu sëñ Saliou Touré ndigal la ci ñun maanaam kon eh, fan la yëf yi tàmbalee mu commencé law dem ba lycée technique jàll ba ci CM yi waaye booba ci suñu suñu suñu pas-pas fa mu toll woon rek foofu lañ daan doxe muy mel ni premier ziar bi ñu njëkk a def ñu ngi ko def le 5 avril 2009 jamono jooja Cheikh Mouhamadul Amin Baara moom sëñ Fàllu mm-hmm. moo doonoon xalif général des Mourides jamono jooja ziar ba ba ñu ko waajee yaakaar na e, lépp booy xool jamono jooja fañ toll woon mhm. benn bus la amoon bus ba sax dese woon naa fees waaye pas-pas ba ñu amoon mhm. ci boole gi ñu Serigne Saliou ture boole moo tax ñu ne lépp lu mën a xew muy taw mbaa naaj mhm. danañ ko danañ danañ ko jëfe te danañ ci ànd ba ñuy waaj dañoo dem ba ci Serigne Saliou Touré moom moo bind bataaxel ba nga xamante ne moom lañu jox xalif bi mu xamal ñu ni ànd naa ko yéen addiya ja mat naa leeral ndax bu évolution di am mm-hmm. bu ñuy faw ñuy leeral e, e, e, caslaay la mm-hmm. ca ñuy mën a xamee liggéey bi nga xamante ne sëriñ loxob sëriñ mu ngi ci sunu biir waaw muy mel ni addiya ji mu ngi tolloon ci soixante quinze mille jamono jooja. mu doonoon lu bari woon lool ci ñun jamono jooja. Mm-hmm. ndax donte xam nañ ni. Mm-hmm. ab murit mënta joxe addiya mukk mu mu bëri ci moom. Mm-hmm. waaye jamono jooja. lu lu rëyoon la. ndax mbooloo mën am toll woon waaye pëstéef ga. moo taxoon ñu ñu xëy na ñu yeggoon foofu noonu. waaye kon tey bu ñu demee ba wax dëgg fay la ñu yegg ci ay millions. dañuy xam ni. loxob sëriñ Touba moo nekk ci liggéey bi kon noonu pour ñu mën koo tënk rek ndax xam naa ne bu ko bëggee yaatal day day day bëgg a jël émission bi yëpp waaw. jërëjëf jërëjëf Diorine euh, Serigne Saliou mel nii eh, kàddu yi leer na te mat na soññee lool ci ci ci ci mbooloo mi amaana comme ni nga ko waxee rek bu doxalin di doxi doxin bi gën a yaatu jéego yi di gën a gën a gën a bari ñuy gis leneen. mat na itam ñu xoolaat fa mbir ma sooxeegoo ngir kenn ku ci nekk mën ca tegaat bëtam ngir xam ni maanaam saa su ne takkuwaat laxasaay jëm ci liggéey bi day day day gën a yàlla si ñun kon muy mel ni kàddu yi matte na ko te am na solo lool macha allah kon xam naa rek dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moo di uh, jëwrin uh, sëñ Fallou rek mu mu dégtal ay kàddoom jëme ko ci xamal ñu wàccaay bi nga xamee ni ñoom ñi nga xamee ni farewuñ ci biir uh, Thiès ani ban taxawaay lañ am ci waajal waajal waajal ziar bi bisimilah jëwriñ jëwriñ si Fall. jërëjëf sëñ Xaadim jërëjëf sëñ Saliou ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral na ko fi ci cëslaay liggéey bi ni mu demee. loolu moom ab soññeeku lay doonaat ci ñun. waaw comme li nga laaj muy wàccaay yi nga xam ne. mbokki taali bi nga xam ne dañoo nekk ci biir liggéey bi. te suñu borom dogal nekkuñu biir Thiès. comme ni ñu ko limee woon sàng waa Cene ba Xombal ak Touba ba ca Ndàngal ma mm. waaye yaakaar naa li ñuy sori sori liggéey bépp ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo ko ànd mm. comme waa commission culturelle li mu xasida yi nga xam ne tey génn nañ ko mm. loolee yëg si na fa ba mbokk taalibe yi tàmbali nañ ko ñu mel ni waa communication ak yi nga xam ne defar nañ ko loolee fi ne daanaka lii sa yëpp Euh, taf nañ ko fa. Mm-hmm. nekkoon ci wàccaay. Mm-hmm. waaye li jëm ci groupe whatsapp yi yëpp rek ñu ngi ciy waxtaanee siyaar bi. Mm-hmm. ba ñi nga xam ne ay ancien membre lañ ne woon ci daara yooyu noonu te génn. kenn ku ne fa nga nekk rek fexe nañ ba liggéey bi nga yëg ko. te it ñoo ñoo ñoo ngi la ciy soññ bu baax a baax. nga xam ne daal jëmu ni lu ci ëpp solo. maanaam ci wàccaay mel na ni lu ci baree baree bare. Euh, fee féete la boor. waaw ko daal ñu ngi ci ñu ngi ciy dox bu baax ant koog ñi nga xam ne suñ ñoom suñu moom dogal ñoom ñu féete fii Thiès incha allah jërëjëf euh, jëriñ sëñ Fallou ci ci ci ci leeral yooyee muy mel ni euh, kon li nga xamante ni ñoom ñoo nekkee ca ca boor bee dañoo amuk mbooloo seen biir ngir gën a mën a indi ak jàppandal ci ngir bu ñuy ñëw ci Thiès maanaam euh, ci liñ ci mën a jàngee ba xam foofee da ngeen a da ngeen di jël yoon ngir dem directement wala da ngeen di ñëw fekk si li nga xamante ni moom moo di mbooloo mi ci ci ci ci convoi bi incha allah. waaw foofu ni ñu ko daan defe saa su rek maanaam ñun ñu faree foofu moom waxtu yi nga xam ne moom lañ joxe mm-hmm. ne ci lañ war a debar su jotee rek mm-hmm. buñ dégg déggante jëwri nga xam ne ñoo féete fii bu ñu joxee ndigal rek mm-hmm. dañ dañ leen jiitu waaw waaye li ñu def mooy ñun dañuy dañuy dañuy àndandoo ñu ko daan defee sax ay jamono maanaam laata péage waa tubaatu dañ daan ñëw ñu xaar leen xombal suñ ñëwee daal di ànd ñoom départ léegi ni ñu ko defee mooy bu dee bii paase ñu waa ndàngal ma lañ ci àndal mm-hmm. ñoom ñoom dañoo yàlla dafa dogal ñu jaxasoo lu ci liggéey bi ak yeneen daar yëpp sax mm-hmm. nga xam ne dañoo départ dem ba ndàngal ba ñoom ñu xaar ñu fa mm-hmm. ñu daal di mbooloo ànd ak ñoom daal di daal di daal di daal jiitu waa Thiès nga xam ne ñun ñi nga xam ne biti moom ñun dañ dañ koy àndandoo waaw du jaar ñuy wàññeeku di ñëw di ànd ak mi saa su ne ñun ñooy départ jiitu liggéey bi suñ demee lu fa mat a tàmbali rek suñ jotee ndigal ci jëwri ni ñu tàmbali ko ba kere ñoom ñu si ndax ñun ñoo gën a jege Touba jërëjëf jëwriñ Sëñ Fall ci leeral yooyu mooy mel ni loolu lu ci lu ci mat a xamee la ngir kenn ku ci nekk koo xamee ne euh, fare na ca boor bee mën a xam ani yan wàccuwaay lay am jëmalee ko ci ci loolee ngir gën a mën a waajal boppam kon xam naa rek dañuy daal di ñëw ci ki nga xamee ni moo di jëwriñ euh, Serigne Salihou Fall moom yee nag day mën a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy aju njëkk ci ab woote boo xamante ni day mën a génn ba ci kenn ku ci ne ci ñi nga xamante ne war naa àgg ca ñoom waane itam bu dee am na yeneen kaddu yoo xam ne bëgg na koo dëgtal jëm ci li aju si wàllum wàccaay bi ak loo xamante ni da ciy mata leeral rek xam naa incha allah rabi mën cee àddu bisimilah jëriñ sëñ Saliou. ok jërëjëf sëñ Xaadim ñu ngi sant bu baax a baax ci laaj bi eh, te sant bu baax ci jataay bi ndax jataay bi feeñal na lu bari ndax kàddu sëñ Saliou sëñ Saliou yi ku ko déglu leeraat ci bopp ñëpp ni sëñ Saliou Touré moo sos mbooloo mi. te da cee sos ba noppi ciy mm-hmm. diggee mooy saa bu ngeen bennoowee mm-hmm. ngërëm li wut ci sëñ Tuubaa ci lay gën a gaaw mm-hmm. mooy li sëñ bi daale dañuy dañuy ab murit dara wattu doon yitteem lu ngërëmal yàlla daara ji itam maanaam bi ma fi tàbbee ak tey ci ñuy wut ngërëmal sëñ Tuubaa ci laa leen xam moo tax ziar bi seddu ci ñun maam ziar bi doonul lu ñu woyofal dañoo jàpp ne sunu mbir yëpp da ciy aju loolu mboolem ku école boo dem daala joo dem ci école yi boo leen déggee ci seeni wàccaay danga nga xam ne ñii li ñuy wàcc ñor na leen ndax yaakaar gu rëy rëy lañ am ci Cheikh mun Muntaxa ndax eh, nim ñu def nim ñu boole ci boppam ak lépp ñu nit ñu jàpp ni tawfeex la goo xam ne bu ñu rëccee dabaat ko du yomb moo tax ziar bi at mu jot saa bu ñëwee danañ ko jox yitte ak pas-pas goo xam ni at yu wees at yi ko yi ko jiitu ku ci teew da yég yëg bu ren bi ni mel gàcceel na bu daaw bi loolu nag ci fànn yëpp noonu la ko wax daara di waajee loolu itam kuñ ci fekk si rek ñu jël ñu ngi ciy woo ñëpp sunu mbokk caari bi yi ne ci dëkk bi mm-hmm. buñ sañoon ñu sagal ko sagal ñu ànd kook ñun mm-hmm. sunuy waajur ñu ngi leen ciy woo mm-hmm. maanaam administration yi ne ci école yi nga xam ni li ëpp ci ñun fan yi jàngee moo xam ci université yi la moo xam ci lycée yi moo xam ci collège yi ñu ngi leen ciy woo itam ndax kat rëy na ci ñun lool ba ci sunuy kilifa yi ne ci dëkk bi sëñ Sall Touré Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nga xam ne dem nañ fa ci wàccaay yi waxoo ko mu dig ñu ne dana ko ànd ak ñun ak ñi ko daan àndal ñëpp liggéey Ibra Gueye sëñ Ibra ñoo ñu nga xam ni sëñ bi daa sant lool ci ànd gi ñuy ànd ak ñun liggéey bi kon daal Euh, ay ab murit moom buy jëm ci sëriñam day fàqu maanaam du dese dara lu mu am da koy yóbbu ziar bi itam yitte jooj lañ ko jox mbooleem loo xam ni trésor la ci ñun fas na nañ yéene bu bis baa maanaam ñu feeñal ko bu baax a baax a baax li nu gën a fonk nag ci fànn yëpp bu dee ci fànnum njàngum xasida daa ji ñu gën a fonk lañ fay jàng daa ji gën a wér ci ñun itam lañ fay jàng bu dee ci wàllum addiye itam jëf ju rëy lañ ci lañ ci waajal mm-hmm. ci fànn yëpp ci mobilisation góor jigéen mag ndaw mm-hmm. ñëpp kenn ku ne yaa ngi yëg ci dënnam mm-hmm. maanaam bëgg goo xam ni ak yàqamte goo xam ni yàq yàqamti na cee yegg maanaam ngir dundal pas-pasam diggam ak Sëñ Tuubaa loolu nag mënees naa wax ni mooy mañ ma xundoone ni ndax li ma wax sànk rek ngërëmal Sëñ Tuubaa mooy sunu yitte maam daal ji amoon beneen beneen yitte judul wut ngërëmal sëñ tubaa wut ko itam moo ñu yeggale fii nu yegg tey ndax kat sëñ lii mu wax lu leer nañ la dani boobu ah, jëf ji fi mu tolloon tey ji jéego yu bari tegu na ci ñoom bi ñu fay teg jëf ji xalaatuñu woon ne bis dina ñëw mu àgg fii mm-hmm. waaye sëñ tubaa lu mu nangu te barkeel ko te yëkkati ko rek fu ne mën na faa yegg sikki saako ñu benn yoon ni ëllëg fu ñuy dégg nit rek mënees nañ faa dégg lépp pas-pas la ak yitte kon ñu ngi ñaan sëriñ bi mu nangul ñu wàccaa yi nangul ñu itam jëf ci buñ ci yeggee te lépp li ma waxoon rek mu sagal ñu ci sunu kilifa gi yàggal ko fi te wér te mu ànd ak wér muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kat ku sagu rekk dañ laa sagal te kat murit bu ne fii jamono toll sañ ngaa yëgati say mbagg maanaam tiitaru te tiitaru googu leen doog moo koy sabab mooy am kilifa gu mat kilifa mm-hmm. kilifa goo xam ne ku ne bëgg na muy sa kilifa mm-hmm. waaye ñun la ko yàlla xéewale mm-hmm. loolu nag daa bokk ci tawféex sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa yi itam la suñ borom bëgg bëgg goo xam ni maanaam dara lu koy gàcceel du ko ñoddi mu jëm ci moom saa su ne lu koy sagal rek la ñuy gis Cheikh Mouhamadul Mountakha nag dafa bokk ci sagi Sëñ Tuubaa yi mm-hmm. ci jamono ji ñu toll kon euh, maa ngi koy fàttali mboolem waa daara ji kenn ku ci ne la ciy sa taxawaay xam nga ko mm-hmm. nan ko waajee pas-pas demee ci pas-pas te am dogu ci li ñuy wut mm-hmm. su boobaa faw lépp yopp kon maa ngi tënk foofu kàddu gi ci li aju ci wet googu jërëjëf sëñ Xaadim euh, xanaa rek bu fekkente ni amul ay kàddu yoo ci bëgg a euh, sof lu aju si wàllum ay information rek bu dee amul itam nga joxe li nga xamante ni rek moom moo di sa kàddu bu mujj walla ni dem li nga xamante ni moom moo di seeneen jëwri ni waaw bu dee at yi weesu itam ni ko daan defee mooy dañ daan fanaan ci barab ba jàng fa euh, sëñ bi daan ñu fajar bu noppee waxtaan ak mbooloo mi leen waaye jamono day dox te yu bari itam di dikk ci jamono sëñ bi dañoo bëgg lool mu yàgg fi moo tax ren ñu xalaat ak bëgg eh, gannaaw biñ ci diisoo ak moom yendal ko ba waxtu tàkkusaan nga xam niñ daan fanaanee ren bu soobee yàlla dañ koy xëyee mm. waaye jataay bi dara du ci soppeeku mbooleem du ci daan am rek nga xam ni ci pas-pas ak dundal eh, ak eh, dundal jataayu murit lépp nam daan amee lay ame leen waxtu wi mun naa soppeeku waaye jëf ji moom du soppeeku kon nag loolu mooy li ma li ma li ma ji xamle te di sàkku itam mboolem ku ne ci daara ji nga doguwaat nga maan pas-pas maam jëm ci liggéey bi ci fànn yëpp ndax ñun amuñu ku dul sëñ Saal Touré daf maa mos wax ne ma yàlla kat moo ñu bind waaye suñuy mbir mi ci loxol sëñ Tubaa koo xam nag say mbir ci loxoom na ne te moom mu sawar lool ci jox la ko maanaam lépp lu tax loolu nga bañ cee jot wala ngaa bëreeg sa bakkan maanaam ba jéem cee jot kon nag ñun jàpp na ne suñu mbir ci loxol Sëñ Tuubaa te gëm nañ gëm nañ ko gannaaw ba gëm nañ ko nag mun def yitte ak pas-pas yuy tax sëñ bi mën koo teg ci suñu loxo mu sedd guy te nu mën koo jëfandikoo itam te lépp doona doonaat liggéeyal ko ndax kat dund gi ab dund du am solo mukk ci murit lu dul ne da koo jeexal ci Sëñ Tuubaa kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ñi ngi sant ñëpp ci mboolem yi weesu mboolem mu daal ji mos a taxaw rek mm-hmm. ñu ngi sant mboolem ku bokk ci daara ji mm-hmm. ndax kat yu bari dafay jaar mm-hmm. waaye loolu fi jaar du dara ci liy ñëw ndax sëñ Tuubaa naan gu yokk mar la lu jeex rek am na luy leneen luy tàmbaliwaat kon ñu ngi ciy sant ñëpp cant gum gum mën a doon rek na doonaat ab laxasaay ci ñun maam jëm ci leneen liy ñëw kon maa ngi tënk foofu kàddu gi tey ñaan suñ borom ni mu ko tàmbalee woon nga xam ne daf maa ñor lool ñun ñëpp ñu maasee Cheikh ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñ borom dimbali nu mu yàgg fi ndax kat loo xam ne moom du ko ñaanal boppam ku ne war ngaa joggi ci li nga yaakaar sa diggante ak Sëñ Tuubaa ndax murit bu ne moo xam xasida la moo xam addiya la moo xam neneen la kenn ku ne am na loo xam ne daal da ko def te di ci yaakaar fajuk aajo maanaam def ko nag ci Eh, jublu ci sa aajo di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi loolu warteef la ci kenn ko ci ne ñu ngi jéggul baax a baax kàddu yi. jërëjëf euh, jëriñ Sëñ Saliou kàddu yi na te am na solo lool te mat na soññee kon xanaa rek di ci woowaat kenn ku ndax kàddu yooyee jàpp naa ne buñ ci tënkoo ci kenn ku ci nekk suñun rek dina gën a am jàppandal ci suñu doxalin kon xam naa rek dañuy ñëw jox ki nga xamante moo di Serigne jëriñ. Euh, Euh, sëñ Fall mu joxe li nga xamante ne moo di kàddoom gu mujj bisimilah jërëjëf sëñ Fall. ok jërëjëf sëñ mm-hmm. mujj gi moom ab soññee lay doonaa rek. Mm-hmm. ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ fi teewal. ñu ko jëriñ ju waxee rek. murit moom. Mm-hmm. taayam junne rek wax nga war a gàcce démbam. kon ñu ngi jëm ci siyaar bi. kon nañu futteekuwaat taqaat laxas laxasaay bu baax a baax. lépp noo xam ne daan nañ ko waajalee siyaar. nañ bii nii na ko na ko na ko kawee njot Mm-hmm. na ko fu loolee nag du doon waxi kese. Mm-hmm. kon yitte lay doon yitte lay doon. Mm-hmm. yitte lay di ci jiitu mooy wàllum àddee ji. maanaam ñu ñu ñu ci soññee bu baax a baax. kenn ku ne rek def ci sa kéemtalaay kàttan. xam ne dañoo dajale àddee fas yéene koo joxe Sëñ Tuubaa. loolee nag lu ko gën a rëy amul ci ab murit. kon loolee du lu ndaw bu ñu amee tawféex jooju war nañ koo xam. kon ñu ngi soññ mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biti Thiès ñu gën a góorgóorluwaat gën a defaat yitte bu baax a baax. ci liggéey bi fonkaat waxtu yi nga xam ne ci lañ joxe ne ci lañ ci lañ bëgg a dem mm-hmm. ndax kon ren ji mbir mi day day xëy amaana bu waxtu yu fausé rek lu bari bari mën na indi ay gàllankoor mm-hmm. kon ñuñ fonk waxtu wi bu baax waxtu yi nga xam ne joxe nañ ko daal mm-hmm. na ko na ko ñëpp respecté kon jërëjëf sëñ Xaadim loolu lañ ci doon dolli uh, jërëjëf jëwriñ uh, sëñ Fall ci kàddu yu am solo yooyu noonu te jàpp naa ne bokk na ci li nga xamee ni kenn ku ci nekk suñu ñun war naa nekk jaayante ci yow ndax jàpp naa ne bu heure boobee jàppandee rek lañ tënk yëpp ngir ne moom la ñu bëgg def ci liggéey bi euh, du si am lenn loo xamee dina ci indi ay gàllankoor kon xam naa ne dañuy jox ki nga xamante ni moo di jëriñ euh, Serigne Saliou Ndour moom itam mu dégtal ñu li nga xam ne moo di ay kàddu yi tàggatoom ak soññee rek bisimilah. jërëjëf sëñ Khadim xanaa di ay kàddu yi cant lay doon yu gàtt rek yoo xamante ne ko jëmale ci jëwriñ sëñ Saliou Fall ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal liggéey bi muy jëwriñ ñi nga xamante ñoo koy jàppale ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax ndax kat booy xool euh, yëf yi fa mu tàmbalee ak fa fa fa fa ñu bàyyi woon liggéey ba ak fi liggéey bi àgg tey maanaam loolu pas-pas dëgg ak ak ak ànd doon benn loolu rek moo ko mën a indi fii ak ak loxoom sëñ Tuubaa bu nekk ci biir kon ñoo ngi sant bu baax a baax sëñ Saliou Fall ak jëwriñ ñi nga xamante ne ñoom la àndal liggéey bi yëpp te may lancé appel képp koo xamante ne gis na sama jëmm ji ci émission bi. ci ci ancien membre yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci ba ñuy sos liggéey bi. ñi nekk biir Sénégal yor ay liggéey. ñenn ñi nekk ci diaspora bi. ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñu dikkaat ci liggéey bi. jàppaat ndax mbirkat boo ko bu bu la sunu borom dimbalee. jaarale ab liggéey ci yow. maanaam da ngay jàpp ni eh, loolu yaa ko moom. moo tax saa su ne li loolu laay faral di wax ñoom sëñ Saliou ak ñoom Baba Niang ak ñoom sëñ Baara ku ma ci jotal rek dama lay woo xamal ne la liggéey bi damaa jàpp ni lépp lu ngeen di def mën ngeen koy defal maanaam kon ñoom itam képp koo xamante ne maanaam bokkoon nga ci membre fondateur yi foo mën a nekk muy Sénégal muy bitim réew na nga jàpp ne liggéey bi sa liggéeyu bopp la te sa wàll mu ngi fi maa maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu jàppaat ci liggéey bi nekkaat ci biir ay membre actif parce que ancien membre amu fi waaw ancien membre moom mënu am kon nañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax jàppaat liggéey bi te xam ni mbir sos ko yomb na waaye jàpp ca ba mu yegg ca loxol Serigne Touba. ca nam war a mel ci ci ci ak tawféex ci ak ci ci ak mat. loolu moom moo jafe. te yàlla na ko Serigne bi dimbale ba ñu ba ñu defee ko noonu. li nga xamante ne moo doonoon yéenay Serigne Saliou Touré ci mbooloo mi. lépp mat te buy mat yàlla bu bu bu ko kenn bu ko kenn wuute. te tawfeex ko laa yéene sama bopp laa yéene mbokk taalibe yëpp rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sosoon kon nañu nañu dikkaat ci liggéey bi ñu àndandoo ko ñun ñëpp rek ngir ni ko sëñ Saliou waxe kaddu sëñ Saliou Touré daa mat li fàttali bu baax a baax a baax muy ngërëmu Serigne Touba mu ngi gën a tabe ci yéen ci ngeen booloo doon benn kon yàlla nañ ci daje ngërëmal Serigne Touba liggéey bi yàlla na ko suñu borom sàmm sàmm jëwriñ bi sàmm jëwriñ yi nga ñoom la ànd liggéey bi yëpp gën a bàyyi Serigne Saliou Touré tamit suñu kanam Euh, sàmmal nu bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njabootu Serigne Touba gépp bisimilah jërë ngeen jëf sant nañu bu baax a baax a baax. Ah, jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou am mi ngi lay delluwaat santaat bu baax a baax ci ci ci teewaay bi ak jàppandal gi nga xamante ne am nga ko jëm ci lii ndax daanaka euh, biñ ko tënkee léegi yàggul waaye gis nañ ak jàppandal bu baax a baax a baax di ñaan saa borom gën la taxaw rek ba yéene bi nga xam ne am nga ko ci liggéey bi nga am ci lu kawe sa njort si barke xasida yi kon xam naa rek dañuy jox ki nga xamante ne moo di jëwriñ sëñ Saliou mu tëj li nga xamante ni moom moo di jotaay bi laataa ñuy jeexal li nga xamante ni moo di plateau spécial bisimilah jëwriñ. waaw kay jërëjëf sëñ Xaadim kon euh, damay nuyuwaale léegi daa ñëw sama xel sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif ndax kat euh, tawfeex bu ñu am ci suñ bi rek moom am na ci wàll. saa su ne ci sëñ Muntaxa wax ju rafet la fay lañu fay waxal saa ne mi ngi mi ngi bàyyiloo xel sëñ bi mbooloo mi nga xam ne bu ñuy waaj jëm si ci sëñ bi da ciy sonn lool ci ci fànn yëpp ci nekkin wa ca kër ga dana fexe ba fu nu war a àgg rek fu jafe woon ci ñu ubbil ñu ko sax dana fexe ñu ubbil ñu ko fu jafe woon lépp lu jafe woon itam ci sëñ bi ràññee lépp lépp moo ko moo moo ko moo ko yombal kon dudul mën a ñàkk ñu beral ko ab cant bu baax a baax a baax ci mboolem taxawaay yooyu tey ñaan dafa daa dafa ñoo wax nañu maag yéen dañoo bokk bëgg ndax man ngërëmal sëñ Tuubaa ay wut yéen itam moom ngeen di wut daani dama ko yaakaar ci sëñ Muntaxaa yéen it ngeen yaakaar ko ci moom kon nag euh, war nañoo mën a ànd loolu itam ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax ci lépp tey ñaan siyaat bi jëm maanaam mu fawxa mboolem siyaar bu fi mës jaar mu doon itam bunt boo xam ni moo ñuy ubbil lépp lu baax lépp loo xam ne ab taalibe dana koy teewoo ngir taalibeem ñoŋ ci àddina ak ci àllaaxira ziyaar bi yàlla na doon bunt boo xam ni moo ñuy ubbil loolu ci barkib sëñ Tuubaa yaakaar jërë ngeen jëf jërëjëf jëwriñ sëñ ci kàddu yu am solo yooyu day wax amin rek yàlla na saa dégg la ci barkeb xasida yi barkeb Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi nga xamee ni mën naa ni lii lépp ñu nekk moom moom képp a tax te soxla woon ci leen di ñaan rek lépp loo xamante ne am nañ ko ci mébét yàlla nañ ci gàttandoo defal ñu si lu tawféex barkeb xasida yi kon muy mel ni ak si nañ ci li nga xamee ni moo di suñu cëppaandawu plateau yéen ñi nga xamante ni yéen a àndoon ak ñoom ci liggéey bi Euh, di mbokk internet yi ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm ci safoo topp gi ci seen télévision bii di Majmahun Nurayni TV waaye ne nag duñu jeexal suñu plateau te euh, santuñu ak gërëm ñi nga xamee ni ñoom lañu àndaloon ci liggéey bi di ci tudd kii di jëwrin euh, Boukounta Diouf nga xam ne moo fare woon ci wàllu cadrage bi jëwrin Serigne Mbacke nekk ci wàllum régie bi waane itam jëwriñ euh, sëñ Matar euh, féete ci wàllum son bi ki nga xamante ni moo di jëwriñ Baara Gueye féete ci wàllum cadre euh, montrage montage bi ak yi nga xamante ne moo aju ci loole di ñaan rek yàlla saa borom gën leen taxawaat ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy àndee saa ne di leen ci delloo sant bu baax ak gërëm di ñaan rek yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba mu mel ni seen mbokk taalibe Cheikhouna Bamba Gueye moom sëñ Saliou moo nekkoon ak yéen ci palaato bi. di leen dégtal li nga xamante ni moom moo fi ruusee ci wàllum euh, li ñuy waajale ziar bi ñu war a amal fële ca euh, Touba ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha le deux juillet incha allah rabi di ci woowaat képp koo xamante ni rek euh, maanaam yëgle bi agsi na ci yow itam di ñaan saa borom lépp loo xam ne ñu ngi koy séenu ci bés boobee ñu am ci rek lu kawe suñu ay njort di leen dox ay li nga xamante ni moom li leen jox dig daje si yeneen i jotaay ak yeneen i palaato incha allah rabbi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf lam yakmil mustafa muhammadi siran wa jalan bil baraya samadi lam yakmil mustafa muhammadi siran wa jalan bil baraya lana